sama gars yi ngeen yaakaar ki di Alima dina yomb pour mu ñëwaat li nga xamante moo nekk si gàlle Marlo suñu xoolee bu baax euh, ba Marlo avoué que ni euh, fase na kii di euh, Soxna Batoor mën nañ ni kontaan noonu trop kontaan noonu trop ba fu kontaan yam mais tamit du nara a ñàkkee noonu jom ba tax na suñu gee fase kii di Soxna Batoor rek mu daal di ñëwaat si gàlle bi comme boobaa danaan day yombal mbir mais nag si lu ma gis sama gis-gis mën nañ Alima dina dëgër bopp tuuti avant muy retrouver li nga xamante moo nekk maison bi ndax euh, day jaay perek euh, kii di euh, Marlo yàgg naa wax ni Marlo fasel kii di soxna Bator mais mu toog ba heure bu ko neex mu doog koo fase te tamit mën nañu Marlo mu dul woon tëbre fase kii di soxna Bator ndax foog mu amoon ay argument yi nga xamante ne du am excuse bi nga xamante ne moom lay jaar pour mën a rëcc foofu noonu Marlo plan bi la mu mot fii la doon iri kii di soxna Botor ba si virage bi mu daal ko képp ko foofu noonu moo tax itam mun nañu soxna Botor dugg na si piège bi ba tax na Marlo nag am na ko te am na argument yi nga xamante ne fase naa la du si mun dara moo tax Marlo bàyyi ba instant yi mu doog koo fase te Alima si loolu nag lay basé woo dina dina xaw a jàppale tuuti Marlo te dina xaw a mer tuuti ndax soo xoolee ba muy ba muy génn gaale bi dafa waxoon Marlo fasel kii di soxna Botor soo fase soxna Botor man dinaa ñëwaat si kër gi mais mun nañu instant yooyu noonu Marlo déglu ko woon Marlo eh, dafa toog ba nga xamante ne soxna Bato defaan na bitis bu rëy mu doog koo génnee si kër gi ñaari bitis la def sax ndax bitis bu mu njëkk a def ba yaakaar naa boobu moo gën a énorme ndax boobu noonu mënoon na rey kii di Alima mais mun nañu xoolul foofu noonu dafa toog ba nga xamante ne yàgg na mu doog a fase kii di soxna Batoor mun nañu euh, kooku noonu di eh, Alima foofu lay gisee boppam te tamit foofu lay mere danaan Marlo toppul samay ndigal te tamit eh, du ma gaaw a ñëw si gaale bi naa xaw a jaay prek tuuti ba tax na eh, loolu laa yaakaar nag moom la kii di Alima nar mais Fanta moom mun nañ ne du problème ndax moom moom mun nañ moom moo gën a poussé Marlo pour mu yóbbu ko li nga xam te moo nekk si kër famille bi pour mu mun a wasine foofu noonu si jàmm moo tax it moom moom pour mu ñëwaat si gaale bi du doon problème mais li li problème bi mooy Alima